fekkee dama ko yor benn nen bu você dama mu ngi ci Ouzin Keita sànni na ko benn nen ñoom ñaar kom benn combat ba mij. Ouzin Keita daw dan génn الشباب الزميل الزميل وزي كي تغول بنيون وزي تغول نجلو جيغل الله لولو جيغل الله attention ñoom ñaar fàq na ko. ah yéen na Ousseyn Keita. Papis Mbaye na Ousseyn Keita. matt na ko nee na. nee na matt na ko. dañ ko matt. ko mat nee na da ko mat ah, Youssouf Keita sama ñaari mbër yi rafet na lii lépp suñu aadal ak suñu cosaan jëngaani wuñ Bring them. boo koy boole ak Pawlish Mbaye daa ba yàlla jàmm yàgg Sénégal ata combat bi sànq moom ku neex la oh jëli bi rëy na jëli la ki ba jàgg ñu ne ay bas ay bis ba jàgg ñu ne ay fan ba jàgg ñu ne ñu ngi ci cëppaandaw li ndeysaan